Euh, bala may wax dara je salue son courage vraiment je salue son dévouement parce que damay wax ne que ñu bëri bu ñuy wax euh, à chaque fois damay reetaan damay ne que peut-être ils n'ont rien compris parce que comme niñ ko waxee tout à l'heure euh, dans les cent et quelques morceaux on prend juste cinquante deux pour un an et je pense que ça c'est possible hein c'est possible te euh, àdduna boo ci nekkee à chaque fois da ngay jéem a parce que on est dans un pays bi nga xamante ni que dafa bëri ay ndaanaan naa dafa bëri ay ndaanaan macha allah ku nekk a ngi bay sa te ku ci nekk aussi am nga lenn loo indi ci musique bi donc je pense que c'est tout à fait normal tey jii mu ñëw indi lu bees. muy 52 PC tey jii mu jagleel ko waa Sénégal et que man dama lay wax ne la man maa ngi ci biir ba 52 morceaux yi jeex parce que nag góor fit. mais man dama gis loolu dama gis benn complicité bu am sa diggante ak sa rak mais loolu comment ça se fait. waaw euh, dara muy euh, man ak moom tey jii euh, mën naa ne ñoo takkaloo mais presque maa ko mag. mais même génération lañ mu nekk sama rakk nag nekk rakk ju neex a jiite euh, man sama morom la sax bañ naa ko ba des fois te dañ naan ma sa grand frère bi dañ naan moo ma mag parce que damay comporté woo des fois comme rakkam parce que nee naa ko kilifa du tuuti donc euh, complicité boobu du dara lu dul yàlla boolee def ñu bokk li ñuy def donc bokk ay ambition bokk lu bëree bëree bëree bëree bëri euh, à chaque fois ñuy nekk di waxtaan di diisoo di sottante xalaat di def leen mu yaru nag déggal